jéem di leen jàngal di leen won yoon bi nga gis yow soo fa nekkutee dina fa am ñoo xam ne mun nañ laa jàppale soo léegi looloo xew nag bu ma président bi indee fii nii am na ñu fa nekka yoo xam nga leen ñoom anti mbi saañang mm-hmm. suma staff yi ñu fa mm-hmm. te tabaar fa kala dama dee tukki tamit mm-hmm. te ñoom laa dee bàyyee place bi léegi nag bu palaas bi ñëwee ma ne leen ak ah, yéen moom yéen a war a féetoo yi te ñoom it ñu ngee def luñ jéem soo ba yaa mu ngee dem ci tamit mbootaay la rek comme mm. yeneen mbootaayu jigéen ñi mm. te women's biro ñoom ñoo war a yore mbootaay yi parce que mooy eh, li bi mbootaay bu of eh, nguur gis taxawal fii women's biro pour jigéen yëpp la amul politique ñu nekk opposition wu ñu nekk APRC eh, ñu nekk government ñu nekk si marché yi ñu nekk si office yi di liggéey ñu nekk si dex gi si tool yi seen jigéen yëpp women's bureau daf fi nekkal ñëpp soo loolu laa bugga pour ñëpp xam mhm. women's bureau ñëpp a moom women's bureau parce que nguur bi ñu ñëpp a ko bokka lu nekk ñun ñoo ko jigéen ñi nag mun nañoo ñëw man lu ma war a wax ne suma bunta yaa ngi ubbeeku mhm. ñun nag ñu ngee jéem kenn xamut lépp kenn munut lépp mhm. lu waaye xalaat bu waaye am pour yóbbu eh, women's bureau ci kanam ak jigéen mbiri jigéen ci kanam mun nañoo ñëw fii ni ñu ñu ñu eddañu suñu yaay yaa ngi foofu wax gërëm naa leen fii waaye ba tey ñoom ñu ngi fa. soo meen bureau pour ñëpp la. so maa ngi oo ñëpp nag ku nekk waaye nuyu tamit suñu chairperson bi. honorable Fatou Mbaye deputy speaker waaye mooy chairperson of the National Women's Council. di nuyu yëpp nuyu jigéen yëpp seen councilor yëpp tamit maa ngi leen a nuyu focal person yu nekk fii ñoom Adja Ami jaata ak ñoom Fatou Mbaye nekk suñu KMC area Banjul bi tamit ñu fi am seen. sen council yi nekk fi ñoom yi yépp am nañ sen focal person ni ak seen councilors yi ñu la na nuyu ñom yépp te parce que councilors yi ñom ño dé teral sarfa yi ñun ta sarfa yoy lañ dé doxalé fi ni ñom ñu teral ak vice président bi moy ministre bu yoré eh, mbiri jigen ñëpp xam nañ ko naka la tako naka la amé xam-xam ci mbiri jigen ak président bi tamit xam nañ naka la eh, jappé mbiri jigen ba kenn bàyyi ko si gannaaw so ñun ñëpp ñu ngi try def luñ mun soo lii jigéen yëpp la umba mbootaay yëpp la umba ñu nekk si NGO yi tamit CSO ñoom ñëpp xam nga ñun yëpp mm-hmm. benn euh, benn objectif bi lañ am mm-hmm. luñ bugg a mooy jigéen ñi ñu am seen cër jigéen ñi seen koom-koom bu yokku si kanam comme luñ ko dee waxee doo su yàggee doo xam ku si teeru gi mm-hmm. ak ku nekka fii ñëpp a ngee liggéey luñ mun ba pare ñu jàngal leen seen métier ñu dem école school amuñ caan pour seen parents yi yóbbu leen school ñu jëm pour jàngal ñi xam ne passé nañ pour jàngal leen si classroom bi ñu leen a jàngal ay métier lu jàng moom du wees nit di nga jàng ba bésu la yàlla ji jógee fii nii waaw ah, naka nga gisee taxawaay réew mi ah, ci mbiri yokkute jigéen yi jigéen yi nag fii suñ guur gi ah jéem na trop trop trop gàcca gaalaama ñu ngi leen a gërëm trop parce que suñ tukkee vice président bi sax wax na ko ak permanent secretary bu nekk uh, vice président of Musa Ñaabali suñ tikkee dem si bitim réew daje fa yeneen réew yi ñu waxtaanee mbiri jigéen dañ dee gis ne ñun Gambia fuñ jéem ak fu ñu eega yeneen réew yi eeguñ fa mm. te loolu lu ko waral mooy suñ président bi mu ngi jàppale vice président bi tamit comme ni ma ko waxee ministre bi si moom la ak jigéen yi nekk fii jigéen yi Gambia dañ takku te déggoo ba pare dañ dañ bugg a liggéey jigéen yi Gambia moom xeebuñ dara soo rombee suba teel jigéen yi ngay gis nekk di jaayantu di génn di di jaay jën di loo mun a xalaat ñu ngi koo def pour dem topato sen jobot yi mhm. so su jigéen yi di def loolu ah, nguur gi lu mu war a def nguur gi nag sarta yi mhm. moom la war a teral mhm. te gis nga e, sarta yuñ teral yoo xam ne yu un la nga xam ne mbootaay yépp yu nekk si réew mi mooy un seen sarta yuñ teral pour jigéen ñu ko oyee sedaaw buñ ko teralee yàgg na ak léegi foog naa war naa am si e, ñetti amoon na ñetti fukki at 19 2009 um, léegi am na ñetti fukki at ak ñeneen ak juróom waaye am na beneen tamit ñu ko protocole bi ñoom it AU e government president yu nekk in Africa ñoom it ñoo taxawal loolu pour seet jigéen naka lañ leen a jox seen cër te bu loolu passé nag loolu la suñ gi seet ñu def ko Women's Act buñ defee Women's Act bi léegi am na mu ngi am si ñeneenti at waaye jigéen yaa ngi see yëngu te suñ parlement bi tamit ñu ngi leen a gërëm parce que mbiri luwaa bi foo leen foo leen jox eh, luwaayi jigéen dañ ko dee eh, teel a eh, paas bii mm-hmm. nag moom paas nañ ko ba pare te ñu doon yëngu si loolu léegi nag am nañ leneen mooy jigéen yi naka lañ leen dee sonalee mm-hmm. si biir sëy bi ak ñu ngi ko ooyee domestic violence bill mm-hmm. ak sexual offences bill ak mm-hmm. ay rape yi kees yi xam nga yooyu tamit mu ngi mm-hmm. bari woon na di daanu si kaw jigéen yi di yooyu ak rape cases soo léegi léegi lañ paas bill boobu te lu ñu war a def léegi nag mooy ñëpp ñu takku ñu xam nit ñi xam ko parce que soo defaralee loi nit ñu ko defaral ñoom war nañ koo yëg war nañ koo xam mun nañ koo jëfoo waaye suñ ko xamut duñ xam naka lañ koo jëfoo soo Gambia daal ñun ñu si kanam kanam. ñun daal si mbiri jigéen ah meluñu yeneen jëkkay de waaye dëkkay de waaye passé nañ yu bari. te ba tey ñu ngi try loo xam ne mun naa dimbale jigéen mu dem si kanam loo xam ne loraange yi teg si kaw jigéen mun lañ leen a génnee suñ ko génnewut complète mun nañ koo wàññi. ñu ngi see jéem te man suma place bu ma jël nii. si loolu laa jublu pour seet. naka la ñoo gën a amun naa ko féka ma yobbu ko ci kanam ak kanam lolu moy suma mbébét te loolu laa ah daanaka ñepp xam nañ la ci rew mi borom nomba tank nga té taxaw nga lo ci li nga xamné moy yokol jigéni di dooleel jigéni légui nak lan nga mëna am pour wax ñi nga xamné ñu ngi sétane programme bi surtout ñi nga xamné né ndaw leen ñoom ñu ngi jokk pour néka magi élek waaw comme nima ko waxé jigéni mom moom dañ dé jëm torop waaye lu may wax lu may aider xale yi mhm. suñ génération bi léegi pour wax leen ne dara yombut dara yombut de mhm. ñun mii dañ nekkoon si suuf balaa ñoo jóguñ rek tëb nekk ci kaw dañ nekkoon ci suuf di raam di jéem di jànga toppa suñ gannaaw kilifa yi déggal suñ kilifa yi ak yeneen kilifa yi nekk ci réew mi su ma nekk kilifa nag kilifa kër kilifa kër am na office bi tamit am na kilifa jumaa ji am na kilifa cooc am nañ kilifa foo mun di dem am na kilifa ñun ak suñ aada ak suñ cosaan ñu xam ne Gambia rek lañ fi am te suñu aada ak suñ cosaan moom lañ fi am balaa ñoo dem jàngi cosaan yi keneen o aada keneen dañ war a xam suñ bos ñu fonka suñ bos nga gis nit ñi sax nañu fonka loolu daal maa koo dénka xale yi ñu yërëm seen kilifa yi ñu nangoo jànga ci jàng ni ma ko waxee rek ñoo xam ne ñoo xam ne am nañ chance. Mhm. pour ñu nekk si school bi ah ñu góorlu rek. Mhm. oo jigéen jigéen lu si seen jàngay ñoo xam ne nag ah li mënuñoo.